chers internautes ñoo ngi leen di nuyu bu baax ñoo ngi fii ci dëkk bi ñuy wax Touba ci màggal bi ñuy defal Serigne Ahmadou Bamba Mbacké Khadim Rasoul ñu feggoog nag ak euh, journaliste bi ñuy wax euh, chroniqueur bu ñuy wax Mamadou Ndoye Bane Ndoye Bane xam ngeen ko ci émission yi xam ngeen ko ci télé bi xam ngeen ko ci RFM ci émission bi ñuy wax xalaat kon Ndoye Bane ñoo ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu ak internet yi. waaw baax na maa leen di nuyu. yéen waa Sénégal di nuyu seen internet yi di nuyu waa Sénégal gi yëpp ak les sénégalais de la diaspora di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci ñeen yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi. Hmm. jërëjëf Ndoye Bane ñu ñëw tey fekk si la fii nii ci kër sëñ Bass Abdou Khadre Mbacké nga dal fi tey ñu bëggoon xam rek yow lan moo waral tey nga dal fi ak lan mooy sa relation ak sëñ bas Abdou Khadre Mbacké. waaw du tey rek laa fi dal parce que. <clears throat> chaque màggal fii laay fii laay dal li ti li tax nag ma fi dal Cheikh Bassirou Abdou Khadr mooy sama sëriñ ci moom laa jébbalu ci moom laa jébbalu looloo tax su màggal gi jotee damay ñëw nekk taalibe def yëf yu taalibe li nga xam ne moom moo war ci bës bi ak liy war sama diggante ak sama sëriñ man na ca ba màggal gi jeex ma tàll ko loxo mu ñaanal ma daal di delluwaat ca liggéey bi waaw looloo tax ma fiy dal at mu jot euh, beneen bi mooy sunu sëriñ yu baax yi di comme par exemple ay sëñ bas bii nga xam ne mooy sama sëriñ xam nga man du ma dof su ma demee ba jébbalu ci nit rek c'est parce que euh, am na lu ma fa gis wala am na lu ma fa yëg sunu sëriñ yi soo xoolee ni ñuy doxale ci àdduna nga roy leen ci rek foo jaar dangay baax doo duggee ci kër sëriñ bi nga xool ni sëriñ bi respecté magam respecté waajuram wu góor ni mu respecté waajuram wu jigéen sëñ bi ni mu respecté ay magam sëñ bi ni mu respecté ay soxnaam teg leen ci place sëñ bi ni mu respecté boppam taalibe bu roy ci ñoom loolu rek waxtu ma waxuma la sax côté euh, alxuraan jeeg xasida yeeg côté boobu waxuma ko mais sëñ bi ci boppam ni muy dundee ak njabootam ni muy dundee ñi ko mag ni muy dundee ñi mu njaboote ni muy dundee soo royee ci ñoom loolu rek doon nit ku baax te man loolu laay roy ci sëñ bas mi bëgg a nekk nit ku baax moo tax ma jébb jébbalu ci sëñ Bass. nga jébbaloo moom. waaw ma jébbaloo ci moom ak léegi war na mat ay 6 ans si si 6 ans voilà at mu jot maa ngi maa maa ngi fi mais nag je suis né Mouride sama papa sëñ Mbacke soxna loo moo nekkoon sëriñam je suis né Mouride ci Mouride laa juddoo ci laa yaroo ci naan ci laa ñaan yàlla faatoo. Oh, sa benn benn anecdote rek ci yoonu ak benn secret bu nga xam ne sëñ Bax baaxee na ko nga baaxee ko tamit mbokku taalibe yi. amoon na benn jamono coow li bari woon lool ci Ndoye xam nga Ndoye Bane moom là où des traces Ndoye Bane nga rek Ndoye Bane moom. ndaanaan nga. coow li daa bari ci Ndoye Bane forum des fois dara am sax ñu ni Ndoye Bane te Ndoye Bane boo fekkul yëgul tinul coow li bari woon lool lool ma feebaroon fi ami woon bopp buy metti dem naa hôpital gisuñu mais daal sama bopp bi da doon métti métti yu garaaw yu doy waar waaw amoon na sax ay mbir yu ci xewoon yoo xam ni bon yooyu kenn du ko wax ci. mbir moo ci xewoon ay mbir yu xasaw yu doy waar sax. bi ma ñëwee wax ko sëñ Bas euh, màggal nii am na màggal goo xam ni ñi ma àndaloon màggal si defe naa kii ci la bokk fekke na ko ñi ma àndaloon màggal si defoon nañ ni man duma dellu ndax. bopp buy metti bi màggal gi jeexee ma dellu si wax ko sëñ bas moment boobu sama bopp baa ngi metti sëñ bas dugg ak man ci benn néeg bu nekk fii tiim sama bopp bi di ma ci ñaanal bi ma ci ñaanee man bi ma génnee néegu Seex Bas bi dafa mel dafa am benn affaire bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bopp bi teg ko nale waaw loolu man maa ko dund ak mhm. ni dafa am loo xam ne dañ ko rocc ci man maa ko dund ak moom fii fii ci Guédé. loolu gën na yokk sa cofeel ci moom. waaw mais loolu xam nga nit ki moom soo soo furnu bu tëw booy côté bu ne lañ koy uppee bopp bi metti da ngay dem hôpital faju ji dem naa hôpital naan naa ay garab doxul ginnaaw nag ñun ay ñun ay ay nit ñu ñuul lañu euh, xam nga dafa lu ñu yaakaar te nit ki euh, dafa am lu ñu yaakaar hôpital ak yooyu ak sunu sëriñ si ginnaaw ñëw naa fi nag nu ko sëñ bi day man de weeree nii dama amee bopp buy metti sëñ bi defal ma ci ñaan du lum ma jox ma sangoo du ma lum ma jox ma tuuroo sama bopp bii la tiim di ma ci ñaanal ba ma pare bi ma génnee ba pare ba dugg sama oto man dafa mel ni dafa am lu ñu rocc ci man teg ko ne le boobu laa gëj a loolu ba léegi te loolu mënulu ma ko sama bopp ni ko ci sant di ko ci gërëm bu baax am na am na yeneen yeneen sëñ yeneen xam nga man jëlu ma ndaare sama morom yi wax ci télé yëpp njëkkuma fi de waaye doo ci kon moo la taal. dama ne doo ci lim juróom te doo tudd moom. yëpp ci moom la dama ne doo lim juróom daal te doo tudd moom loolu moom. te xanaa moo la ñaanal kon ci ah, mais mais nga tey jii jébbaluwuma ci moom di dellu ginnaaw ba ma jébbaloo ci moom ba léegi maa nga ca kanam te sama benn morom rawuma te du ma gis sama benn morom ba ba ma jébbaloo ci moom gis naa ne yokku naa te at mu jot maa ngi gën a yokk. te incha allah day gë day day day gën a yokk nee na ma woon coow li bari na lool coow li bari na lool waaye del def lu baax di wax lu baax nanga nga liggéey tey teelal sam noonu su la leeree ni kii nii dalaa bañ del dëkk ci di ko teral. lu jafe man ci loolu laa ne. Mhm. jërëjëf Ndoye